bi ñu dénk wàllum bitim réew mu ngi rafet lu bu baax avancement préparatif yi nga xam ne moo ñeel aji màkka moom Mankeur Ndiaye amaloon na visite ci plateforme enrôlement yi nga xam ne ñoo di pèlerin ngir def taxaw seetlu ci organisation voyage bi ci bërëb bu sell bi ma ñëw fii tey ji pour nemmeeku préparation aj ndax loolu lu ko soxal alors ma ñëw fii nag visite bu ma def kontaan naa si trop ndax lu positif rek laa si discours bu voyagiste privé yi également discours bu dal xel la. ci atum ren bi nag Sénégal am na ci quota bu toll ci fukk ak ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom benni fukki pèlerin nga xam ni nii lañ ko séddalee. 1860 la délégation bi am privé yi am 11000 alors que avant c' était l' inverse donc loolu am solo la décision président la mooy lu nga xam ni privé yi mën nañ ko def lu tax nguur gi di ko xëccoog ñoom lu privé mën mën def dañ jox ko privé donc xam yaakaar naa am naa yaakaar ni fekk at yi di ñëw. dina dem bi nga xam ne privé yi ñoo jël lépp. fi mu tollu nag am na ci junni ak juróom benni fukki inscription yoo xam ne jot nañ ko enregistré am ci lu toll ci juróom-ñaari téeméeri pré-inscription. si pour délégation bi 1060 euh, ak 700 yi nga xam ne ñu def pré-inscription boo ko boolee yëpp mu nekk 1760. donc mu desinu à peu près près de 100 nga xam moo des. donc sans yooyu bu ñu xasee ba inscrire kenn mënatul inscrire en tout cas au de la délégation donc loolu am solo la ñu wax ko maintenant au titre des privés 4 792 ñoo jot a inscrit ren aussi euh, package bi ñoo ngi ko fixé 4 millions 300 mille xam nga package bi dafay évoluer waaw dafay évoluer yenn saa yi mu xaw wàcc tuuti yenn saay mu yokk mais 4 millions 300 mille la par pèlerin. dem bi ak dikk bi ñu ngi ko tënk ci diiru fanweeri fan maanaam li ko dalee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mais jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin 2024.